الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي دلو سيوات ci سنو درس بأجو aju والو إج موي لكتير عرب arabe نيفو niveau بي njëkk دفع بند بي defee aju ci wàllu shadda rotul nag ci téere bi ndax ci téere bi dikkut ci faramfàcce fàcce donte rot na ci téere bi ànd ak fatxa ànd ak kasra ànd ak damma waaye dana baax ñu yaatal ko nii leeral ko ba noppi dooga nag daldi sóobu ci li ne ci biir téere bi bu ko defee shadda nii lay mel maanaam benn màndarga la benn signe mooy lu xonq lii mangook day mel ni dañoo jël sa ñu daal di koy dagg ma ngoog nii lay mel lu xonq lii lii mooy shadda ma ngoog bu ko defee moom fi ñu koy fekk ñu ngi koy fekk ci kaw yenn araf yi gis ngeen fii boo xoolee gis nga mu ngi nii ci kaw ci kaw daal bi fii mi ngi nii ci kaw laam bi noonu lay nekk ci araf yi lan mooy jubluwaayam ak lan mooy liggéeyam ci li nga xam ni mooy kaw araf bañ koy fekk bu ko defee kon la muy liggéey mooy moom dafay ful maanaam dafay duble araf bi nga xam ni ca kawam lañ ko teg araf bi nga xam ni ci kawam lañ ko teg day double araf boobu maanaam araf boobu day nekk ñaar ma ngoog araf bi day mujj nekk ñaar ma maanaam fii niñ ko fekkee ci kaw daal bi daal bi kon day doon ñaar ci buñ koy liir buñ koy dawal waaye buñ koy bind benn daal lañuy bind def ca kawam shadda waaye nag buñ koy liir ndegam am na shadda ca kaw bu boobaa kon araf bi ñaari yoon lañ koy liir léegi nag ñaari yoon yiñ koy liir nan lañ koy liiree bu boobaa kon gis nga nii lay mel ci buñ koy liir maanaam gis nga daal bi moo amoon shadda gis nga fii ma moo tax ñu représenté xonqaayu shadda bi ñu daal di koy représenté ak couleur boobu ba léegi ci ñaari daal yi ngay gis mangoog ci ñaari daal yi ngay gis boo xoolee am nga dë ak da bu boobaa kon daal bi nga xam ni moom dañ ko maasoon fatxa muy da waaye mu am shadda lii <clears throat> tolluwaay bii la am maanaam tolluwaayu ñaari araf waaye benn bi nag sukun lañ koy maas beneen ba nag mooy des ak masque masque bi nga xamante ne nii moom mooy masque araf ba te muy da kon bu boobaa day daal di nekk dë ak da dë ak da maanaam ci yaatal fii dañoo am dañoo am madda maanaam ma ak daal boo xam ni daa am shadda muy madda gis nga madda boobu moom lañ tàllal fii moom lañ détaillé fii gis nga madda ma dë ci bu xonq bi da ci bu ñuul bi muy madda gis nga ko madda boo dikkee fii it kaa lë ak la boko bolé mu jox la kala ka le la kala kala bobu mo nek ni kala gis nga ni lañ koy bindé ak shadda motax lam ji gis nga mom mo nek ñaar ndax mom mo mom mo yor shadda bi motax mu nek le ak la kon toujours araf bi yor shadda bi lettre bi yor shadda bi day nek ñaar day nekk ñaari araf même araf bi nag lay doon waaye day doublé rek ma bu ko defee benn bi bu doublé woo doon ñaar benn bi sukun lay lay yor masque beneen bi nag day yor masque de départ bi maanaam masque biñ bindee woon biñ bindee woon araf bi ma ngoog nii kal la gis nga la bi day des waaye shadda bi muy lu xonq li moom moom la représenté nii muy làmb xonq bi mooy am sukun bi kon ci wax ji buñ koy liir moom mooy jiitu lë la gis nga kal la gis nga kal la après la kal la boo dikkee fii it gis nga noonu la yit gis nga ko daa nga am jë ak ji ndax lan ndax boo xoolee fii gis nga ji la boo xam ne daa am daa am shadda kon day nekk jë ak ji ma ngoog boo xoolee fii ñaari araf lañ bind boo ànd ak shadda kon bu boobaa day doon ci boo koy jàng ñetti araf ma ñetti araf yooyee boo koy liir mu jox la daa jë ji daj ji gis nga daj ji ci tàqale bi waaye ci bind bi nii la daj ji gis nga ko fiit noonu xaa ak di boo xam ne daa am shadda kon bu boobaa boo koy liir lii la lay jox xaa de di muy xaddi gis nga ko moo nekk nii xaddi ba ca topp it noonu la raa bu boo xam ni daa am shadda kon bu boobaa day nekk raa ba bu noonu lañ ko détaillé fii raa ba bu mu nekk kon rabbu gis nga rabbu moo nekk ni rabbu fiit noonu waa ak mu mu boo xam ni daa am shadda kon buñ ko tàqalee ngoog bokoy lire son bi nga wara am prononciation bi nga wara am wa ma ak mu wa ma mu mu nek lan wam mu gis nga wam mu waye ci bind ni lañ koy bindé waye bo xolé shadda bi di nga xamni mim gi ñaari araf la ndax dañ koy doubler shadda bi da koy doubler kon nga ne wam mu gis nga wam mu ci bind gis nga wala ci lire nii dañ koy liire bu ko defee kon loolu ngir nga xam ni saa yoo dajeeg shadda rek xamal ni araf bi am shadda bi araf boobu moom dañ koy duble dañ koy duble buñ ko doublé kon moom day doon ñaar benn bi benn bi day ame sukun même araf bi ji boppam benn bi day amee sukun beneen bi nag day des ak masque bañ ko bindee woon ma ngoog bu boobaa kon ci ngay Madak, madda kalla dajji Rabu, rabbu wam maa nga ko defé kon ñu tek fofu sunu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh